ba yéen a nga ca Jalal ak jamaa di Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye ñoo nekkoon démb ganu njiitu réew mi Macky Sall bés bi le jour na ñoom ñaari dama pénaari kay démb ñoo nekkoon ca pale ba ak Macky Sall waxtaan nañu fa saafante fa reetaan fa jël lépp gas bu mu xóot daal suul ko bés bi le jour na li am démb daal ca pale ba moo sigil dëgg démocratie bu Sénégal lii yëglekaay groupe immédiat bi ne prestation de serment bu Bassirou Diomaye Diakhar jàpp nañ ko ñaari fan ci avril gii ci Sicap Centre International Abdou Diouf ca Diamniadio buñ ca noppee ci boobu réewum Sénégal nationale Vox Populi ñeenti fan ginnaaw élection présidentielle yi lé moom njiitu réew Macky Sall nag dala na Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko ca palais ba waxtaan ak ñoom teg ci kaw table gi dossier yi gën a tàgg jër ci Sénégal waaye tamit daal bañ ci noppee doxantu na ak ñoom ci biir palais ba yëgle kaay bi ne ñaari fan ci weeru avril gi la jàpp prestation de serment bu Bassirou Diomaye Faye 11 heures du suba ca Sikat te de pouvoir njiitu réew mi Macky Sall libération de transition bi daal door na diggante Bass ak Macky tur bi nu yéene kaay ne président Macky Sall kay ubbi na pale ba démba te Bassirou Diomaye Faye mi ko wutu ci bopp réewum Sénégal ak Ousmane Sonko daal la ubbil yéegle kaay bi ne ay daal jàmm ndax ñoom waxtaane nañu tolluwaay réew mi ak dossiers yi nga xam ne moo koy xaar ci bopp réewum Sénégal gi moom Bassirou Diomaye Faye l'observateur ne kay waxtu mooy organiser cérémonie kaw ci ndaje mi le Quotidien njiitu réew mi a dem ak njiitu réew mi dikk ñoom ñaar ñëpp kay gas na bu xool seen xéeróo ak seen ŋaayoo suul ko nag lal jàmm seen diggante vox populi moom Bassirou Diomaye Faye kay cinquième président ci Sénégal daal kay xaar seddul déedéet ndax bu weesoo bëgg-bëggam ci boobu réew Sénégal commerce intérieur préférence nationale bi ba ci consommé local bi lépp ay priorité dëgg la ci moom Bassirou Diomaye Faye turbine yéene kaay ne moom Senghor président kay ma ngay teg ay jéego yu rëy ngir indi rupture ci Sénégal waaye tamit changé nañu doxalee politique fii ci réew mi ndax am na lu bëri loo daal du ko nangu yëgle kaay bi ne tafsir cooy ginnaaw bi waa parti démocratique sénégalais jaaree ne mu jaar na le lañu ko dénkoon di porte bi nangu nañ ko jébbal le Bassirou Diawara te Serigne Abo Mbacké Thiam député bi ak Gero Tall daal ñoo gi nag koy xaar avion la ak yoo xamante ne daal ay mbiru boppam la l'observateur ñëwaat ñun ci ndénkaane yu mujj moom président Macky ci conseil des ministres bi nga xam ne amal na ko àllarba gi ñu génn yéeglekaay bi ne moom président dikkaane bu baax baax ci seen jël bi ñu amee ci élection présidentielle ñu génn ñëwaat ci seen taxawaay wu yees bi nekk nag léegi ay opposant ñoom waa benn bokk yaakaar yi waaye tamit ñaax na leen bu baax baax ndaxte te waajalaat seen jotuñu ko ay waay li tamit ba jàmm la enquête ne guerre bi kay doon laa lay ni ci mooy wuutu président Macky Sall ci boppu APR ginnaaw Amadou Ba Abdoulaye Daouda Diallo Maître Sidiki Kaba ak Mansour Faye ñoom ñëpp a taxaw tem laa lay ni ndax kenn ku ñoom daal mën ko jiite laas ne Benno Bokk Yaakaar nag mu nekkoon ci nguur gi démb tey di nag taxawaay opposant daal la taxawee bul bee tourné moo tax ba yéene kaay bi nañoo ñoom ñëpp fori bennoo faatu dal ci ko président Macky Sall Abdou Hakim génn ci pasaral ndaxte nee na jëlug Amadou Ba gi ci élection présidentielle bu ci kenn tudd président Macky Sall ndaxte nee na lu ji njàkk daal Amadou njàkk moom Abdou Hakim Dieng yàq na lu mel ni xamee jege ñaale Amadou Ba yi ndaxte nee bu ñu ñàkkee élection yi daal ñooma sur ko juróom fukki milliards yi ñu dugaloon ci defaraatu building administratif moom Mamadou Dia ba léegi daal amaguñ ci lu ñu bëgg te lii nag bokk na ci na ko ci réew mi Sénégal te ba day daal noppeegul yëglekaay scandale Prodac ba ci pétro timtali lépp rek nekk ay dossiers yoo xam ne ndaxte nee nañu seen doom ji nag alkaati ñoo ko tuur ba mu dee looloo tax ñuy sàkku nag justice yoon bu Sénégal def liggéey ba mu jeex takk la lay wax bés bi le jour ginnaaw coow li nag waa police daal génn nañu raxasu ba set wi ci mbir yi waaye daal nga yëg nga ñàkk yëg ginnaaw lii lépp moom sëfaru Dakar dem dikk bi daal génn na di Kaba Sané Badji ndaxte nee na li am barke de mondiage Pikine daal yëfu dëgg la ndaxte nee na gars yi ko assommé ba noppi nangu portable nangu xaalis bi nekkoon ci bus Dakar dem dikk bi lii bés bi le jour beneen coowal suuf na moo jole ca Thiès kaay bi dëkk ñaari gaar daal ci kaw société qualité végétale Sénégal ndaxte liggéeykat yi nee nañu benn promoteur immobilier nag moo bëgg dikk nangu seen suuf nga xam ne ay junni junni borom kër ñoom liggéeykat yi nag nee nañu coow yi nag duñ ko bàyyi mu sedd mu daaloo def su lam fekk fa Max Mbargane si ak Modou Lo moom gu nekk lansaar gi nag daaw war a def kim talaay kattanam am ndam ci kaw borom Rock Énergie Modou Lo su bëggee dégg roi des arènes l'observateur gang bi doon tere nelaw wa Sacré-Cœur jàpp si ne góorgóor gi daal daanu na ginnaaw ay braquage ak i sàcc yu dewaar yoo xamante ne ko ñu ngi ko fa doon amal yëglekaay groupe Futurs Médias bi ne gang bi benn transitaire ak ay étudiants ñoo nekk ci bopp bi mais da ngay seet loolu rek